la laa ilaaha illallah Cheikh Boro laa ilaaha la Njaay Allahu laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah waa kontaan bégte laa ilaaha illallah nag soo ko déggee maanaam sa xel day dellu ci yàlla ndaxte maanaam laa ilaha illallah yàlla de na kàllaamin wa anna huwa kàllaamin mooy sama wax wa anna man huwa maay moom yaa ngi dégg kon nag maanaam boo tuddee laa ilaha illallah sa làmmiñ moo ko tudd sa nopp dégg ko sa bët da ko war a gis yaa ngi dégg lépp lu gémmiñ tudd nopp dégg ko bët da ko war a gis wala taqis ma lay sa làkka bi xel ma inal samha wal basara wal la yàlla wax kon nag maanaam lépp loo xamante ni gémmiñ tudd na ko nopp dégg ko ba da ko war a gis Serigne Touba daf ne képp ku tudd laa ilaha illallah xam la mu làmboo fas ko sa xol da dugg ajana ëllëg am déet Sëñ Touba ko wax fa kullu man sakaraha muxtaxida mat mu naha daqala ajjanata xadan sëñ Touba ko wax kon képp ku tudd laa ilaha illallah fas ko sa biir xol bii xam la mu làmboo ëllëg di nga dugg ajana kon nag man lan mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah tabaraka la moom mooy yàlla suñu borom yaa ngi dégg soo tuddee laa ilaha illallah tudd nga tur ba am na jëmm am na melo kon lépp lu waaye tudd lu nekk sa gémmiñ gi lay seede ba moom mooy nga gis ko ndaxte Serigne Touba daf ne tudd yàlla moo ko may ba may ko bés bii tey ndaxte boo xoolee ci biir jawartu mu ngi lay wax ne akramani laahu bi zikrihi wa ma lixtaaraho wala yaqaadalax wa ma akramani teral na ma laahu yàlla bi zikri ci ma koy tudd kon tudd yàlla moom mooy Serigne Touba tey bés bi na gaa yi bañ di berndel jëmmu yi te fàtte ruu yi ndaxte xar bëy nag gëlëm ba ci maanaam ginaar loolu noonu 18 safar lay signifié de waaye loolu noonu jëmmu yi lay berndel waaye nag ana lan mooy berndel ruu yi képp ku jóge feneen ñëw Touba gii nga berndel ko si jëmmam war ngaa berndeel ruu mi lan mooy berndeel ruu mooy laa ilaha illallah waaye nag laa ilaha illallah boobu noonu faaw nga xam ko xammee ko soog koo jaamu ndaxte gars yi dañ ne maanaam julli mooy jaamu yàlla julli mandarga la ci jaamu yàlla waaye julli du jaamu yàlla ndaxte inna salaata tanha hanil fasaay wal munkar julli dana dàq lépp luy ñaawteef ak luñ sip waaye wali zikrullahu akbar tudd yàlla moo gën a màgg lépp kon maanaam tudd yàlla si ba nga ko gisee xam ko ndaxte maanaam yonentu yàlla Muhammad daf ne laa ilaha illallah mooy caabi ajana laa ilaha illallah miftahul janna laa ilaha illallah mooy caabi ajana waaye nag laa ilaha illallah bu sell la wax man xaala laa ilaha illallah xaalisan kon bu sell ba la wax yaa ngi dégg waa lan mooy laa ilaha illallah bu sell tudd ko dégg ko gis ko kon gis ba moom mooy maanam bu sella ba yaa ngi dégg ndaxte maanaam bu fekkoon ne julli mooy dugal nit ajana yonent yàlla Muhammad du wax maanaam laa ilaha illallah miftaawul janna xam nga lu muy wax salaatu miftaawul janna mais waxul salaatu miftaawul janna de laa ilaha illallah miftaawul janna kon laa ilaha illallah mooy tàbbal nit àjjana waaw li waral Baay Faal du li waral Baay Faal du ndaxte julli yaa ngi dégg mënta dugal nit àjjana mën a dugal nit àjjana mooy laa ilaha illallah te laa ilaha illallah boobu moom lañ jël dëxëñ ko ci biir Baay Faal su Baay Faal jullee day dugg ajana su julliwul day dugg ajana maanaam tey jii nii su ma ne la man Tamba laa jëm yow nga ne tàmbaa nga jëm nga jóge nga jógee fii dem Dakar pour dem Tamba man ma jógee nii def nii dem Kaffrine kan mooy njëkk yoon bu gën a gaaw ak yoon bu yéex ñun si yoon bu gaaw bi lañ nekk yoon bu gaaw bi mooy laa ilaha illallah jàpp ca di dem ndaxte julli dañ na la fas juddoo lillaahi waaye waxuñ la fas juddoo fil ardi sujjóot leen ci yàlla ak sujjóot leen ci suuf si duñ benn mais bëri na tey ñuy sujjóot tey ci suuf si la ñuy sujjóot duñ sujjóot ci yàlla. léegi laa ilaha illallah boobu la def ci yéen. laa ilaha illallah li mu def si ñun mooy dafay raxas suñu ruu def ko mu sell lool chargé ñu ba ñuy xam démb xam tey xam suba di gis ajana di gis safara loolu ku yeggul ci laa ilaha illallah mënoo koo gis sëriñ boo topp bu nekk war na laa xamal safara. xamal la ajana xamal la fa nga jëm suba xamal la fi nga jógee démb su la ko mënta xamal sëriñ boobu du sa sëriñ sa seytaane la. ndax sëriñ yi jamono yooyu noonu am na ñuy def loolu jamono ji. jamono bii nii. Mhm. Baye As Ndiaye Aboori Diall moo koy wane sang Cheikh Omar Ndiaye moo ko daa wane jox ko doomam di Baye As Ndiaye mu koy wane képp ku ci bëgg a jot Baye As Ndiaye ngi nii sëñ mënta mi ngi fii. maam si kaw Kaolack Passoir Ndorong lañ nekk mais ci sëñ Muntaxa fii lañ jokk sëñ Basiru Mbàkke ñun tu tànk yi ñoo daan jàngal sëñ Moustapha Basiru xasida kon ñun duñ ay gan fii yaa ngi dégg kon nag maanaam sëñ mun taxa mii ngay gis nii yàlla si boppam la gis xam yàlla xàmmee ko soo weddee lii ma lay wax demal ba ci sëñ taxa nga ne ko ndax yàlla dañ koy gis di tudd yàlla waaw kese bu raaxul fen ñu teg ko teg ko ci ñu ne oh, oh, yàlla kalimatul xaqalaay ba baatu laa ilaaha illallah fa la góor yàlla di rawee kon loolu cosaan la kon cosaan la lañ bàyyi cosaan dem ci aada aada mooy li am li am nag mooy gis nga ko jël sa bopp jox ko yàlla parce que sëñ Touba te nga dafa ay na muridu laa ana jaam bi na ma dem ci yàlla man ci yàlla laa bàyyee ko ci yàlla laa jëm kon kenn ku ne war war na war na lijanti loolu. mais Baye Fall bi tamit dafa am beneen doxalin wala boo benn xar kanam boo xamante ni. dafa fekk baax ci moom muy jëf muy colin bi doxalin bi kàddu gi ba ci jëmm ji. waaw kon foofu noonu ñu ñu ñu delloo kaalaama bi borom Baye Fall borom Baye Fall moom da daf lay tarbiya wàcceel la tegla ci yoon bi kon baay Fall moom comme ni ma la ko mën a waxee rek nekkul création kon loolu noonu segam nekkul création kon foofu noonu titre la tur boobu noonu. pour boobu noonu nekkul lu ñuy lu ñuy foyee nekkul lu ñuy foyee kon foofu noonu ndigal rek nga ndigal rek nga mën a jëfee bàyyi tere. dañuy gis si esprit bi Baye Fall yi euh, boor ba ci nekk rek dafa am ci ku ñuy bootu muy ki nga xam ne mooy seen jëwriñ wala mooy seen sëriñ yéen ci fan ngeen bootu. Ah, ñun ñu ngi jokkoo ci ci ku ñuy wax Baye Asdaay mooy suñu wasila moo mooy mooy moom laay jël jaam eggale ko ci yàlla nga gis yàlla. gis ajana gis safara boo foo ci mën a toll ci ci kaalaama bi waa ci heure beeg minute beeg seconde bi nga xam fi ci toll quoi kon foofu noonu leer la kon lu mënul a nëbbu jant bi mënul a nëbbu lu gis nga ko mu ngi nii waaw ki mooy Baye Ass ki mooy Baye Ass Ndiaye kii mooy mooy Baye Ass Ndiaye léegi jàpp jaam àggale ko fa yàlla loolu noo noo ma koy mën a expliquer man su ma mënul comprendre su ma àggul foofu voilà jàpp jàpp jaam euh, àggale ko ci yàlla ni ma la ko mën a expliquer mooy comme lu ñu regroupé nii ah góor ci kaw góor ba ci yàlla kon yàlla mu ne nit mooy sama magasin segam nit mooy sama magasin nit moo manqué wul ci benn fànn gis ko nit moo taxaw fii mën na wax kokoriko mën a wax comme lépp lu lu lu am daal nit ci nit la nekk quoi kon ci nit lañ kaste lépp kon nit kooku moo moo war a xam boppam xam sa bopp bokk na ci jaamu yàlla li ngay ne mu xam sa bopp nag mooy dangay ngay jokk ci ku egg boo jokkoo ci ku egg da ngay egg. àgg bi àgg bi lan la gis yàlla la wala. àgg bi àgg bi àgg àgg bi mooy mooy ak gis yàlla parce que ak foo foo foo yoon boo ko bàyyi da nga àgg. gis bi mooy lan gis yàlla boobu noonu noo ma koy mën a teg. ni mu la ko mën a e, e, e, firil quoi ni ni mu la mën a firilee gis moom maanaam maanaam maanaam tolluwaay la tolluwaay boobu noonu loo gis. dañ cay toll boo ko tollul am na foo xam ne boo ko to boo fa tollul mënoo mënoo ko expliquer quoi mënoo expliquer du xam lépp wax lépp waaye nag si ron mbóot la coutume bu ñu nëbbu yaa ngi gis lu ma la ni kon kon segam si euh, ron la coutume bu ñu nëbbu kon kon kon gis boobu noonu ni mu la ko mën a firilee. maanaam tamit nu mu saf ka ka mbàcc ka. Ah, mu la ko mën a firilee daal daanaka moom moom gis nga comme li nga wax rek lu mu lu muy saf ka ko ko xam. Abdou Karim la Abdou Karim. <laughs> waaw Abdou Karim sa tur bi na de alors tey dañu gis xale yi laxasaayu nekk ay Baye Fall lan mooy motivation bon xale buy laxasaayu nekk Baye Fall loolu boo ko gisee lenn moo koy waral parce que dañ ne xale bi xale xalelu ak xale bi nga xamante ni yaa ngi dégg dafay mag mag lu xale bi nga xam ne nga doon xale jël sa xale yaa ngi dégg teg ko ci yàlla boo demee ba doon mag yàlla dalay lay téyel sa mag yaa ngi may dégg ndax si jamono ji gis neen fi xale yoo xamante ni dañoo topp saay ratan bi topp aduna bi yaa ngi dégg fooyee seen ndaw ba nekk ay mag damay ba doon mag yaa ngi leer na leen dee nga jub si ñu bëgg a jël seen mag bëgg koo dénk yàlla yàlla tey boppam yaa ngi may dégg ñun nag ay xale yoo xam ne dañoo judd am sens ci yàlla ndax adduna lii rek moo fi ne ñaari yi da judd am sens ci adduna baa nga judd am sens ci yàlla yàlla dafa def na ñu ñun dañoo judd ci yàlla yaa ngi may dégg géej nag boo fa boo boo demee ba judd fa war a fexee man ni ñuy féeyee ku dañoo judd ci géej gi yaa ngi dégg di jàng nan la ñu war a féeyee ak nan la ñu war a dundee ci biir géej gi pour mën a jofe yaa ngi may dégg looloo tax ñu nekk ay Baay Faal ñorul leen lu dul loo xam ni mooy comme li ñuy wax rek tey gone yi ñu ci bëri sama maas yi mhm. ñu ngi ci boîte yi ñu ngi ci musique yi leer bañ a bokk colin ak yéen loolu détail la loolu amul sens ay boîte ay loolu yëpp détail la am na lu ko gën ndax dana la lii baax na lii baax na waaye lu baax loo gis rek am na lu ko gën kon su ñun sa la ko gën sa lan toog yaa ngi may dégg ndax imaginer la ki jógee ca biti dem yaa ko dund saayar yaa ko dund buwaat yaa ko dund loo xam ne mooy naf su bakkan mu ba loolu lépp ñëw ñu xamal ko yàlla muy gàddu ay ngisee sol ay sagar di dugg ci dëkk bi di liggéey di jox sëriñ bi yaa ngi may dégg kon kooku noonu dem ba yegg ci loolu ñu xamal ko loolu est-ce que dina nangoo di delluwaat di duggaat ci ay leneen kun dépassé nañ ay boîte ndax loolu lu mu neex neex neex di nga dee ba ko fi boo dee ba ko fi te xamoo fa nga war a jëm fi nga jëm baa du musiba musiba la waaye nag boo xamee fi nga jëm xam fi nga nekk boo dee àjjana ngay am waaye boo ko xamul nag musiba la lay jural ak fan. esprit bi dañu si gis. Mhm. njañ yi. waaw ñenn naan ko rasta mais njañ lañ koy tuddee. lan mooy esprit njañ bi boo mu mënee wan sa bopp sa bopp sax boo ma ko mënee wan. waaw njañ ak rasta ak toxora yaa ngi may da ay baaw a loolu yëpp dañ koy loolu yëpp kàllaama la tur la. lépp lu am tur dafa am jëmm dana la toxoro njañ yaa ngi may dégg ay baawa baab ay rasa ay baram loolu lépp dañ koy wax mais tur la waaye lépp lu am tur dafa am jëmm boo gisee ñu lay wax ay rasa wala ñu lay wax ay njañ lépp loo gi tur la rek waaye ba taxu ba terewul loolu du Baay Faal de yi ma sol du Baay Faal Baay Faal xool bu set bu na xool bu set nag waxun bët yi xool bii nga xamante ni mooy gisal bët bi boobu lañ wax loolay Baay Faal ñun ci loolu lañu toog gis nga njañ yi nit a nga koy def di la romb naan la Baay Faal ta doonut ko gis nga yëre yi ma yëre yi ma sol nit a nga sol di la romb sol ay kurus yore këllam di tudd baat bi te du yàlla te te du Baay Faal kon Baay Faal xool bu set la xool bu set nag boo ko bëggee boo ko bëggee am da ngay topp sëriñ bu nga xamante ne xolam dafa set ndax sëriñ Tuubaa na ku bëgg xol bu set dangay ngay topp ku xolam set yaa ngi dégg mu yeesal sa xol bi tàbbal ci xol bu set la xam déet kon ñun foofu lañ toog war nga nekk koo xam ne xëy na mën nga xelal xale yi gone yi jeunes yi sa moroom jeunes yi surtout jamono tey fi mu toll jamono mbett na lool ban xalaat wala boog lan nga leen di xelal pour li mu leen di xelal mooy nañ topp yàlla bàyyi àdduna topp yàlla looloy xalaat bu njëkk bi bàyyi lépp loo xamante ni mooy saayira tan na ku ci dee boo dee dugg safara yàlla moom amul ségrégation mënoo topp àdduna heure bu la topp ko topp ko topp bànneex bi heure bu la neex nga bëgg ne da ngay dem ci jàkka jeeg jàkka jeeg église yi ne da ngay jaamu yàlla boo ko defee da ngay sonal sa bopp yàlla wootewul loolu yàlla ndaw yi la soxla boo demee ba ci armée boo amee 50 ans wala 60 ans duñ la jël amun ci yow soxla waaye nag bu fekkee xale bu ndaw dañ lay jël xam ne yow mii di ah, yaa ngi dégg di nga war am yaa ngi dégg pour boo mën a demee quoi am déet kun yàlla xale yi la soxla kun xale yi li mu leen di digal mooy nañ bàyyi àdduna te topp yàlla sëriñ Touba nee nag sëriñ boo topp te xamul yàlla du sa sëriñ sa seytaane la am déet sëriñ Touba moo ko wax am déet kon ndaw yi li mu la digal nañ topp sëriñ bi mat sëriñ sëriñ si dañoo bëri waaye dafa bëri ñoo xam ne dañ lay sànq Baye Fall dañoo bëri waaye dafa am Baye Fall ak ba ma réerandoor am Baye Foo yaa ngi may dégg tiijaan ak ma tëj xaadir ak xar yaa ngi may dégg lépp loo ci dafa am foo ak original am déet kon li digal ndaw yi mooy nañ bàyyi ci li nga xamante ni yàlla gërëmul ko dem ci yàlla lu yàlla gërëm yàlla man leen cee fay lii laa lay digal ndaw ñi. lan mooy yàlla. waaw asalaamaaleykum njëkk waa ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen déglu lu bare bare bare bare yàlla moom bu ko jaam di laaj moroomu jaamam it maanaam yàlla si jëm boppam bu ñu nee yàlla mooy ki amal lépp amee lépp du question boobu nga laajte yàlla mooy ki amal li fi nekk amee lépp kooku mooy yàlla borom jaam ni ak saa tey tey Baye Fall bi esprit Baye Fall jëmmam doxalinam si ay kàddoom ak dundam lan la war a jàngal doomu aadama ak lan mooy njariñam ci kaw suuf. waa xam nga Baye moom si lim jàpp lenn dong la parce que yàlla moom moom moo bind àdduna ak li si biir waaye moom première kàddoom si digganteem ak jaam yi daf na binduma jinne ak lu dul nit ngir ñu jaamu ma kon doomu aadama balaa moo jog di uti dara ci kaw suuf première chose bi njëkk a jaayante mooy diggante ak boromam. kon jóg uti borom boobu noonu moo tax yàlla sàkk wasila ci kaw suuf wasila googu nag yàlla ci kaw bi yàlla sàkk ci kaw suuf mooy Cheikh al Murabbi kon wasila boobu nag moo waral Baye faal ndax wasila boobu tey jii nii mooy Serigne Touba moom la ko Cheikh Rafal toppe woon te moom la jël def ko ci Cheikh Rafal wasila boobu mooy Cheikhu Omar ca Kaolack moom la toppe Cheikh Moussa Cheikh Moussa def ko ci moom tey Baye As Ndiaye yor ko sopp ñu ñu ay Baye Fall ñu ànd ak moom topp ko ci saar topp ko ci baatin di déglu ndigalam di bàyyi ay tereem. ñu bëri wax mhm. am na ñu bëri yenn mhm. naan Baye Fall yu mhm. loolu lan nga ma kii wax est-ce que loolu mooy Baye Fall waa te jii ne nga laajte noonu maanaam Baye Fall doomu aadama la est-ce nga wax ji Baye Fall doomu aadama la kon tux ak naan yàqul doomu aadama ndax nit ñaari mbir ñoo ko composé mooy leen jëmm ak ruu oto tey jii nii su defee accident bis bu policiers yi ñëwee wala gendarme yi di def constant amuñ soxla ci xottu oto ba chauffeur bi doon dawal la ñuy njëkk a lijjanti kon jëmm ji moo soxla yàmba ak sangara mais la yàlla di àtte kooku du jote sàngara jotewu fa tux yàmba jote fa muy ruuxu laa kooku leeru yàlla lay dundee. dëgg la baax est nga wax ji kon kii tux yàmba wala ki koy naan ñàkk matam moo tax mu di ko def mais la nga toppe sëriñ ba du tuxum yàmba wala naanum sàngara sëñ bi wootewut loolu. est-ce wax ji kon sëriñ bi li mu woote mooy yàlla borom jaam ñi yàlla jooju nag ruu gi moo ko soxla ñu ko defee ci yow yàlla ëllëg ruu lay atte waaye du atte jëmm kon jëmm jooju des na ci yow ndax tux mi mun naa yàq dara ci sa jëmm kon yow la arrangé yow personnel bi yoonu sëriñ bi newu ci kon sëriñ bi li ko yàlla jox mooy leeru yàlla leeru la ilaha illallah kon lim seq ak yow mooy jël leer googu tabal ko ci yow sa ruu mucc fii mucc fañ jëm jëmm ji say waajur nañ la ko sàmmal wala yow bi nga demee ba am xel nga sàmmal ko sa bopp cheikh al murabbi li nga ko jox aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin jox naa la sama bopp te yàlla ta kon bopp boobu la sëriñ bi jël àggale ko ci yàlla kon loolu la warloo ak yow kon leneen la ca des nag des na ci yow yaay xool sa sante bopp nga bàyyi sàngara xool sa bopp nga bàyyi cigarette kooku des na ci yow mais li nga xam na ni nag loolu la yàlla soxla kooku leeru laa ilaha illallah la kooku du mbiru jëmm kooku mbirum ruu la kon nag Baye Fall suñ ko waxee nag dafa weesu monde bi Baye Fall du si jëmm Baye Fall si leer la am na koo xam tuxut naanut est-ce que nga wax ji te la yàlla soxla nekku ca kon yàlla si jëm boppam daf na lee xaraamun ngir lan wóorut ñàkk wóor gi mën na laa gàllankoor ci sa jëmm waaye waxu la ne baaxul est yaa ngi dégg wax kon ñun tuxuñ naanut lu dul ca leeru yàlla ya dañ cey tux da ca naan ñun waa kër sang Cheikh Omar Ndiaye lañ gis yàlla jëxërën ak bëti bopp dañoo gis yàlla fii gis ko fële di ko dund ci biir di ko dund ci bit est-ce nga wax ji kon tawfeex ak taysiir maa ngi jégalu bu wér a wér baas yàlla Serigne Fall loolu toppoon suñ Touba Serigne Fall loolu toppoon suñ Touba ku gisul yàlla ak ku a bokk ku mën a jur boo gisul yàlla boo dee dugg sawara barki laa ilaha illallah Serigne Fall laa wax maa ko wax. Serap Fall tool amoon na Bamba boo topp dama ne la mooy xam tey jàkkaarloo moom di ko topp bàyyi ndey bàyyi bàyyi topp bàyyi jàmbur te boo toppee bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur boobu nga def si yow loo xam ne sa ndey def ko ci yow sa bàyyi def boo topp da woon na yàlla def defut loo xam ne sa ndey sa bàyyi def ko ci yow laa ilaha illallah lan moo fi ne sëriñ boo topp te xamul yàlla sa seytaane la seen yaay yéen a ko téye amba gaay télé dinañ ko teg dañ ko tëj bàyyi gis yàlla jaxratal waa kër maam Cheikh Ndiaye Bori Dial alaaji borom merci